الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di leen dénkit ngeen ragal yàlla di suñu boroom yàlla yeeyoo ci ñu ragal ko ko ngalla waay kenn ci yéen bu mu dee mukk lu dul yëg ne ne jébbalul na boroomam subhanahu wa taala gannaaw loolu mbokk jullit ñi ngi jóge ci feet gu rëy di feet bi gën a rëy ci feetu lislaam donte ne lislaam ñaar rek la ca am muy la nga xame ne nii mooy feetu tabaski boobee moo nekkit lu doon tëj daje bu mag jaamu yàlla bu mag di at mag ga nga xam ne moom it jeex na ñu ngi ñaan mboolem jaamu yàlla yañ ci def yal na yàlla boole ñu ko nangul te ña des màkka it yàlla delloo leen seeni kër ci jàmm bokk julit gannaaw fet bu mag boobee xamal na suñu borom yàlla ci jagleel gëm jagleel xeet bi jagleel na leen la nga xamee ne mooy feet gu ñu war a feetu ci semaine bu nekk feet googu nga xam ne mooy bisub aljuma nga xam ne tey lu bari ci ndaw ñi daanaka aljuma ak altine lañ yemele donte ne boo dellu woon ci gannaaw tuuti da nga yëg na suñu maam yi dañu fonkoon bisu aljuma suñu maam yi dañoo doon sàmm seen bopp ci bisu aljuma xatta ñun ñi ñëpp bi ñu nekkee ay xale soo déggee sa morom musaaga sax nga ne ko i xanaa xamoon ne tey la aljuma loolee mbokk nekk lu ñu fonkoon réyal ko lool ndax booba programme yi xew yépp amul woon tey boo delloo suñu réew at mu nekk mën nga fee nommé plus de trois cents programmes yoo xam ne sos nañ ko gannaaw suñuy maam am na maam yu ajjuma la ñu amoon looloo taxoon ñu màggal ko doonte ne ku ko màggalit màggal lu jara màggal mbokk ajjuma googu suñu boroom moo ñu ko jagleel ñun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte ne ni day santoon na yahud ya nga xam ne ñoo toppoon Muusa ne leen nañuy daja ajjuma di ci jaamu yàlla ñu dem pexe ci seeni diine ba wëlbati ajjuma joojee ñu jàpp ne samedi daal moo gën a yeyoo di màggal samedi nasaraan ya daal di ñëw moo ñu toppoon Isa ñaari pexe seeni pexe ba jël dimanche daal di koy def mooy seen bisu daje bii xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee suñu borom yàlla sàmmal leen ajjuma ba falilahi alhamd bisu ajjuma bi tey ba demee Indonésie ba baa ngay yëgg Amérique fa gën a sori doomu aadama yi xam nañ ni mooy bisu daje ci jurit ñi loolu tax yowmal qiyaama suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam di ñu wax ne suñu borom bu dajalee xeet yi xeetu lislaam lay jëkka woo atte leen ñaye yoo tabbe ajjana mu tabbal leen ca yal na yàlla boolu ñu ca avant muy woo la nga xam ne mooy yeneen xeet lan moo leen may loolu muy ajjumoo jooju nga xam ne yàlla dëppale na leen ñooy doon ñoo koy màggal mbokk suñu borom yàlla dafa teg su ñun bi ñu yëkkatee jàkk yi mu sant ñu ñu yëkkati ko ndax borom moo ne fii buyuutin azina allahu an turfaa yàlla sant gox mu ñu nañ fa tabaxi jàkka yàlla sunnaal bala ñu julli nañu nodd bépp koo xam ne amoo ngant da ngaa war a ñëw julli si waaye amaa nag bu dee ajjuma suñu borom da caa dolli convocation spéciale daa di ne ay yéen jurit ñi fépp foo xam ne wooteel nañ julli te bisub ajjuma ba ngalla waaye daw leen itti woo leen dem wuy ji la nga xam ne mooy fàttalug yàlla googee kum fekkoon ci commerce sax bàyyil commerce ba ca nga dem wuy ji donte ne mbokk commerce mooy lépp looy joxe di xaar leneen rek kay day joxe banaanam pour ñu jox ko xaalis waaye kay day joxe dooleem pour ñu fay ko xaalis ingénieur ba ne wala architecte ba joxe xam-xamam pour ñu fay ko xaalis te mooy bépp liggéey bu ngeen nekkoon su ngeen déggee noddal nañ àjjuma bàyyi leen ko ci dem wuy ci loolee mbokk ñu gis ne di woote bu mag bu suñu borom yàlla woote suñu borom màggal bis bi ni màggale weeru koor ca la nga xamee ne nii moom mooy fukki weer ak ñaar yépp noonu la ajjuma gën a màggee ci bisu semaine bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci loo xam ne abi hurayra nettali na ko nee na bis bi gën a màgg day mooy bisu ajjuma yàlla ci la tànnoon bind suñu bay aadama yàlla ci la tànnoon dugal ko aljanna ca la yàlla tànnoon wàcce ko ci kaw suuf te it allaxira du taxaw lu dul ci bisu ajjuma lay doon loola tax mu ñëw ci yeneen riwaaya yoo xam ne mboolem lu dul nit ak jinne muy malaaka yeeg bàyyu may bu ajjuma ñëwee bu ajjuma jub see dañuy tiit ba ba ajjumay paase ñu xam ne kon adduna tukkeegul loolu mbokk mi ngi noonu julli ga nga xamee ne nii moom la ci sunu borom yàlla farataal gis nañu ne yeneen bi salallahu alayhi wa sallam nee na ay nit day duñu bàyyi di sàggane ak julli juma lu dul yàlla dana kaste seeni xol ñu bokk te ña nga xam ne dañoo sàggan ndax na am bokk julli juma mooy lan mooy semaine bu nekk war nañ daje ci kanamu imam bi imam bi fàtteluñu ana lan muy ndigali yàlla lan mooy tere yàlla su ab événement xewee mu wax ñu ca ana fan lañ ca war a jaar amaana koo xam ne da ngaa tegale ay ajjuma ay ajjuma ay ajjuma demoo ci daje boobee moo ki bàyyi woon portable am lu jege dix jours chargé wu ko loolee yéenay bokk yem ay da ngay mujj daal di vidde loolu it moo tax sunu yenente sallallahu alayhi wa sallam ne nit ñi day du ñu bàyyi di bañ a teewe juma loolu yàlla dana kaste seeni xol mbokk bisu ajjuma di bisu ñaan ngal la waay ab julit moom dundam yépp da ko war a def ñaan waaye nag rawatina bisu ajjuma suñu yeneen ci salallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom yàlla day def na ci la nga xamee ni nii mooy benn waxtu woo xam ne lu ko ci ab julit ñaan suñu borom yàlla dana ko ko may donte ne waxtu woowee borom xam-xam yi am nañ ci ay juyoo am na ñu ne mooy fi imam di dugg si ba baa julli gi di jeex donte ne la gën a bëri ay tegtal mooy fi takkusaan jote ba baa jant ba di so ngal la waaye waxtu woowu dee ko jagleel baril zikrullah baril ñaan sa mboole mi soxla te bul fàtte la nga xam ne mooy allaxira bisu ajjumaa ngi nii ñu war a góorgóorlu bokk na loo xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko ci sarax bi nga ci génne moo gën ba nga génne beneen bis bal ñu ni na sarax gëne ci weeru koor ci yeneen weer yi noonu la saraxo ajjuma gënee ci yeneen sarax yi loolu moo tax tey boo demoon Dakar da ngay gis ne yelwaankat yi dañuy double ngir lan gi di sàkku ju ay sarax ndax li ñu yëgoon ci ne nit ñi kat ajjuma dañ koy def la nga xam ne mooy bisu sarax mbokk ajjuma ji dañuy gis ne yowmal qiyaama suñu borom nim ñu sante ñu daje ci jumaam yi dana dajale julit ñi ca ajjana ca place yi nga xam ne fa la leen jagleel ñu nekk ci seen tribune leer ya suñu borom yàlla feeñu leen ajjuma ju nekk loolee nekk xiiwal gi gën a rëy goo xam ne moo nekk ci ajjana moom la borom bi di wax naan wala day naa mazid ay ajjana mboole mi xiiwal yoo mën a xalaat luy bégal xol loo xam ne dana bégal ay bët ak nopp loolu ma nga fa waaye la ci gën a màgg lépp mooy jàkkaarloo ba ñu jàkkaarloo suñu borom jalla wa ala yàlla bu ñu yàlla xañ ci ñuy jàkkaarloo moom borom boobu subhanahu wa taala boo ko jurit bokk na ci it ci loo xam ne defal nañu ko mooy bisu ajjuma day nam la sante ngay sangoo soo ko jaarele it na ko yàlla bëggi suñu borom dana la sang ci say bakkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul kenn koo xam ne dana jóg bi su àjjuma sangu daa di wëlbatikuwaat laab naka yàlla maye mu laab ko daa di laal la nga xam ne moom mooy parfum ba nekk ci këram ga mu génn dem ca fa ñuy jullee nekkul ku teqale diggante kenn xanaa toog na daal fa mu toog déglu xutba imaam ba imaam xutba ba pare mu ànd ak moom julli ku mel nii day yàlla dana ko baal ba baa ajjuma ji dellu siwaat bal am na riwaaye bi wax sax ba daañ ko ca tegal ñetti fan ay bakkaaru fukki fan dees na ko ko baal loolu it mbokk di mbir boo xamee ni nii ku nekk ci ñun war caa bàyyi xel rawatina loolu mu wax ni mooy bu imam dee wax mu daal di doon koo xam ne nii kuy noppi la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na heure bu ñuy xutba yow nga gis koy wax nga naan ko hey noppil nee na yow su jumaa matul amma ka nga xam ne moo doon wax yonent bi tuddul sax ay mbiram waaye yow mi dégg koy waxee nga ne ko hey noppil rek mu ne ko mel noonu indi nga coow ca ko indi coow sa juma matul loolu moo tax ba mbokk jullit ni ngay sàmme sa bopp ba buñ dee julli doo wax noonu nga war a sàmme sa bopp ba buñ dee xutba doo wax rawatina nag lu bari suñu mbokk jigéen ñi mbokk kon gis nañu ngëneel gu rëy gi suñu borom yàlla mi ngi ñu ko jagleel bokk nañu lu ñu yonent bi alayhi salaam doon bégale amul benn julit buy dee guddi aljuma wala nga dee bisu aljuma lu dul yàlla subhanahu wa taala dana ko musal ci mbugalu bàmmeel ca mbokk en général ku mucc ci mbugalu bàmmeel da nga mucc ci mbugalu sawara ca ku mucc ci mbugalu sawara fokk nga tabbi aljanna yal na yàlla musal ñu ci mbugalu bàmmeel ak mbugalu sawara te defal ñu àjjana muy suñu wàccuwaay ay yéen mbokk julit gis nañu ne lii nga xamee mooy ajjuma ji jullit da koo war a fonk di ko waajal loolu tax suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne fajaruk ajjuma da daan waajal doomu aadama yi xamal leen ne tey ji kat muy bisub ajjuma àdduna du tukki lu dul bisu ajjuma ajjuma la ñuy yàlla di dajale yowmal qiyaama looloo tax da daan jàng ñaari saar yoo xam ni soo ko fekkee da ngay gis ne lépp la ko ëmb moom mooy wax mbiru bisi penc wax cosaanu doomu aadama wax fa muy mujje benn bi moom mooy suratu sajida ñi fi jullee ci fajar fekke nañu jàng ko beneen mooy suratul insaan mi ngi noonu ñaar yooyu la daan dajale ci ñaari rakkaaya loole da ngay gis na mbokk dirit biñ demee ba fitna tabbi ci ñun bala nga xamee ni li ñuy defe kas néew am na ñoo xamee dañ naan jàkk jooju duñ fa jullee ndax taxawaay yi dafa yàgg looloo tax ñun ñuy jéem a jé dab ca suñu kentaleel kattan donte ne mënuñoo jël lépp bu ñu taree ajjuma ji saar bi beneen ajjuma ñu tari beneen saar bi donte ne jubluwaay ba dëgg-dëgg ci suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam mooy fàttali nit ñi ñu waajal la nga xamee ni nii moom mooy bis bu màgg boobu dañuy xaar ca bokk na la nga xam ne moo ñu koy entraîné mooy ajjuma ji looloo tax mu nekk bisu taar bu jul ñi war a taaru ngir gaat nga gaat nga gu rafet xatta heure bi nga xam ne ci lu ñuy daje juma ca la yàlla di atte jaam yi ba fa lay jeexale atte bi ña nga xam ne ñooy waa ajjana dem sieste biir ajjana ñay waa sawar dem feneen moo ngi noonu ashaabul jannati yawma idin xayrun mustaqarran wa ahsanu maqila ay fa la ñuy sieste muy heure bu ñuy pare loolu tax julit bi su ajjuma ñu bëgg mu wane mandarga jaamu yàlla bu yàlla gërëm ngir ajjuma ji yàlla di dajale yowm alqiyama mu bokk ci jaamam yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala da leen a gërëm ay yéen mbokk julit nañu xam ni ajjuma joojee yàlla da koo farataal ci bépp góor boo xam ne nii da ngaa majeur amma koo xamee ni nii da ngaa doon ko aji feebar suñu borom yàlla teggal na la ko koo xam ne dafa am ngant am looy tiit yàlla teggal na la ko suñu borom yàlla teggil na ko jigéen suñu borom yàlla teggil na ko aji tukki doonte ne jigéen jooju ak aji tukki joojee ak xale boobu ñoom ñetti ñoo ñépp ajjuma ja waru leen woon waaye ku ca dem yàlla bindal la tuyaaba jami bindal góor ñi looloo tax jigéeni sahaaba ya da ngay gis ne dañ daan dem ca ajjuma ya comme ne ca jigéen ne ca ne ca góor ña doon demee mbokk li nga xam ne nii bokk na ci it ci xéewal goo xam ne nii suñu borom yàlla defal nañu ko mooy di teel a dem ca jumaa ja ci loo xam ne nii lu ci bari doomu aadama yi léegi ak seen kër-këri àdduna dana doon lu muy jafe ci ñoom waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne dem nga ca waxtu wu jëkk ca aljuma nee na yaa ngi mel ne ku jëndoon benn giléem daa di koy rey daa di tasaare yàpp wa daa di koy sarxe loolee mbokk waxtu wu jëkk woowee borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf am na ñoo xam ne dañ ne mooy premier waxtu ci ajjuma rek ay ba jant ba fenkee ba jant ba fenkee jëm kaw loolee premier waxtu wa am na ci ñoo xam ne dañ ne déedéet premier waxtu wa ma ngay commencé fi julli it di commencé ay 9 heures jëm kaw doonte ne am na ñu ca wax lu tolloog une heure de temps avant zawal al muhim mooy loo man ci teel dem juma nga la waay def ko te xam ne loolee mu la cee xaar yonent bi alayhi salaam nee na ñu ñëw ca waxtu ñaareel ba dañuy mel nañu rey nag ña ñëw ci waxtu ñetteel ba mel na ñu rey xar ñeenteel ba mel na ñu rey ginaar sarxe juróomeel ba mel na ñu jël ab nen daal di koy sarxe bu imaam ñëwee malaaka yi nga xam ne ñoo nekkoon ci buntu jumaa yi di bind turu nit ñi di bind la nga xam ne mooy yool ba bañ am ci ajju mooy keroog joojee ñoom daal di lem seeni dossier daal di ñëw su ko defee di déglu xutba bi muy wone ne yow bu deente ne ne da ngaa ñëw ci jumaa ji it liste ba malaaka yi bind yow ah saw tur nekku ca loolee kon di mbir boo xamee ne nii ngalawaay nañu góorgóorlu di ko def ci xam ne bokk na ci lu yeneen ci bàyyi salaam daan tudde riba mooy waa ji nga xam ne daa jóge këram njàpp njàpp mu sellam ñëw toog ci jàkka ji dara dara teewu ko teewu ko nibbi këram lu dul xaar julli ngir mu dem julli nee na ko mel noonu malaaka yaa ngi koy ñaanal nan ay yàlla sa jàmm bi ay yàlla yàlla na nga ko jéggal ay yàlla yàlla na nga ko yërëm baba muy jóge ci julli googee di dellu këram kon ki ñëw toog ci jàkka ji 15 minutes bokkul ak ka nga xam ne dafee toog 30 minutes bokkul ak ka fa toog une heure de temps te xam leen ne bokk na fu gën a màggee fu ngeen di passé seen temps fii nga xam ne nii mbokk julit moom mooy néegu borom bi subhanahu wa taala loolu moo tax ba heure boo mënee teel a ñëw juma ñëwal di jàng téerab yàlla bi di doon koo xam ne da ngay bari li nga xam ne mooy zikrullah te itamit loo mën ci ay naafila nga def ko la nga xam ne mooy naafila avant juma amul ab bu la neexee defal ñaar ba baa ngay def douze raka yaa xam waaye la nga xam ne mooy gannaaw ba it yonent bi salallahu alayhi wa sallam daanañu dégtal ne ku mën na julli gannaaw juma am na riwaay yi wax ñaari rakka am riwaay yi wax ñeenti rakka soo ko jullee ca jàkka ja baax na soo ko jullee sa kër baax na loolee kon di mbir mu ñuy war a bàyyi xel heure boo dugg see ci juma bi it fekk imaam a ngay xutba bu dee da ngaa toog ca mbedd ma moom da ngay toog amma boo duggee ci jumaa ji fokk nga julli ñaari rakka comme na ko yonent bi salallahu alayhi wa sallam doon digalaatee mi ngi noonu bu doon yàlla dafa dogal bi nga ñëwee ci julli gi fekk nga ñaari rakka yi fekk nga ñaari rakka ya bu doon fekk nga benn rakka nga am ci julli jumaa ji bu imam sëlmalee da ngay jóg dolli ci beneen rakka su jumaa mat na amma bu doon bi ngay yegg si imam siggi na ca rukkoo ñaareel ba ay kon yow amoo ak imam benn rakka su boobaa da ngay ànd ak imam ba julli gi jeex nga daal di continuer jóg julli ñeenti rakka lu tax loolu mooy su boobaa da ngay wuutal jumaa ji tisbaar ndax yaag imam amu leen benn rakka te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu doon wax ki def benn rakka kooku mooy ka nga xam ne moo dab la nga xam ne nii moom mooy julli bokk bisu àjjuma it li ñuy màgg màgg du tax mukk ñu jagleel ko jaamu yàlla spécial comme na nga xamee ne lu bari ci nit ñi tey noonu lañ koy defee mooy bu guddi àjjuma jotee lu ci bari ñi nga gis ñoo xam ne dañuy bàyyi bu bari onze heures ci guddi bi nit ñi commencé bëgg a tëdd nelaw ñu doog a taal seeni haut-parleur commencé di yuuxu commencé naan dañuy def zikrullah mbokk loolu njuumte mënul passé loolu la ëpp ci ñoom fa la ñu nekk bay une heure deux heures donc même bu doon julli fajar ba muy tul daañ biddanti waaye tee nelaw it ña nga xam ne ñooy seeni dëkkandoo mbokk loolee waxuma daje ba daje la boo xam ne islam gërëmu ko waaye lor ga ca nekk it kenn xamul nu mu toll su ko defee bisu ajjuma it kenn du ko taamu rek ne tey la ajjuma xaar ma woor ko déedéet bu duggee ci say koor nag loolee dara néew ci waaye doo jubli bis bi ci boppam ne bis bii day damay koy doon loo xam ne nii bisu koor lay doon ci moom lii mbokk mbir la yoo xam ne nii war nañu góorgóorlu di ci bàyyi xel bu baax te it di ñaax la nga xam ne nii moom mooy suñu njaboot ci ajjuma jooje ngal la waay ñu fonkat ko màggal ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na wa man yuazzim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub képp koo xam ne dafa màggal la nga xam ne mooy mandarga yàlla mandargaam lii day day wan ne yow lii nga xam ne moom mooy ak ragal yàlla ñu ngi nekk ci si biir xol ba gannaaw loolu it mbokk ñu nit alhamdulilah ñu ngi toog fii ci sunu juma julli ci jàmm fa seen a dellu suñuy kër ci jàmm waaye mbokk am nañ ci adduna bi ñoo xam ne fitna mi ngi dal seen kaw rawatina fee nga xam ne nii dañ koy tuddee ci Birmanie nga xam ne suñuy mbokk jullit yi nekk foofee ña nga xam ne ñooy bouddhiste yi ñu dëkkal di xeet yoo xam ne gëmuñu yàlla lu seen bànneexu bakkan rek la ñuy topp nee nañu bëggatuñu gis foofu ay julit di leen rey ay reyin yoo xam ne nii jéggi na dayoo ba xabaar yi nga xam ne jot naa ko démb rek lu jóge deux cent cinquante mille ci ñoom gàddaay nañ foofu dem fa nga xam ne mooy Bangladesh ngiree natt yu metti ya nga xam ne mooy dal ci seen kaw loolee mbokk di mbir yoo xam ne nii ab julit la nga xam ne moo ko ca war mooy fu ma toll di leen ñaanal yàlla tonte ne ni it léeg-léeg ñu ngi génn ci internet bi ay photo yoo xam ne nii ku ko gis day blessé sa xol ca wallahi amuñu benn preuve bu leer ne lii foofu la xewe woon ndax internet lu ne mën nañ ko cee génne bal ay preuve yoo xam ne ay nit ñi génn nañ ko wane ne bari na ci yu ñuy génn yoo xam ne ba mu xewee ci dëkk ba kenn xamul kañ la woon ak yu bari yoo xam ne ci yeneen i place la xew woon ñu jël ko di ko affiché ci loolu almuhim yow julit xamal ne lu bon moom soo ko déggee rek doy na suñu borom yàlla wax nañu ne asxaabul uxduud nee na ay xeet yu fa jaaroon lañu dañ leen a jël lakk leen loolu rek doy na mooy ay julit ñu taal leen lakk leen lu tax ñu lakk leen mooy dañoo gëm yàlla kon it nañuy gis ne ñoo nit ñi ngi leen jël di leen rey reyin ba gën a ñaaw comme naka yàlla waxoon ci firawna ak xeetam waaye jarul di jël la nga xamee ne wane ay ñun ñaan julit lañu ñu leen di daggate di leen dëbb di leen rajaxe loolee ban njëriñ lay am ci yow loolu amul benn njëriñ mbokk julit su ko defee ñu góor góorlu waat am yëg-yëgu lislaam yëg-yëgu lislaam bi mooy it ñu xam ne suñu borom yàlla mbokk adduna bii du kërub saxuwaay adduna kërub nattukaay la looloo tax muy seetaan ay jaamam yu baax ñu leen di ah mbugal gën jaatar ci mbugal képp koo xam ne da caa dee ca lislaam dong nga tax ñu rey la da ngaa shahid te mbokk julit adduna bi kenn génne wu fi grade bu gën a màgg nga bokk minal shuhada mboolem sahabatul kiram daaw ñu ñaan yàlla lu dul bokk minal shuhada amma ñi nga xam ne bu nuqatal nañ leen ci génne leen ci seen i kër ak seen i woy loolu lépp da ngay gis yi dana yokk seen i daraja far seen i bakkaar doonte ni lii lépp du tee ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu aafiye bañ ñoon nattoo loolu waaye suñu mbokk julit ne yàlla nattoo loolu it na doon ca birmanie la na doon ca chechenie la na doon ca syrie la na doon afghanistan la na doon ca yemen la na doon ca ay poche yu dul jeex yoo xam ne tey jii ñu ngi fay sunal julit ñi ca loolu i tamit sunna aada yàlla la ci kaw suuf ñu ngi ñaan ñoom ñëpp yàllaa leen gën a peeg yal na yàlla wàcce ndimbalam ci ñoom ak yërmandeem ci ñoom yal na yàlla subhanahu wa taala xettali julit ñi ci seen i coono yal na yàlla delloo pexe yéefiri ci seen kaw yal na yàlla defal leen loo xam ne dana leen itteel bañ bàyyi julit ñi yal na yàlla wàcceel ñu jàmm suñu réew yal na yàlla wàcc fi ak gindee ko saxal ñu ci sunna yal na yàlla def réew mi réewum lislaam yal na yàlla rafetal suñu mucc gindee ñu suñu ndaw te rafetal la nga xam ne nii moom mooy suñu daje ak moom buñ dajeeg moom yàlla na def àjjana muy suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin